yaakaar ma ngay judd fa nga xam ni moo di Casamance ndax buñ sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne moo tukkee ci pouvoir public yi dafa delluwaat ci jàmm rek daal di dikk ci gox bële waaye tamit jot nañoo fësal ne kat am na accord de paix bu nga xam ne jot nañ ko siife woon naam ci benn ngàll bu nga xam ne moo delluwaat ci fuppe nekk ca Casamance waaye gis na ne ci jamono ji nag nguur gi Sénégal gis nañ ne loole sax dëkk gën a soxal ba tax na mu daal teg ak commission ad bi nga xam ne mooy sukkandiku ci wàllum jàmm ak délégation bi nga xam ne ñenn ca bopp mooy initiative bu delluwaat ci ñu gën a dajale ñi nga xam ne daal mooy mooy banqaas yi seq waa MFDC ñoom nag ña nga nekk ca bët gànnaar tuddee ko Nord Jakaay ba tax na ñu daal di fësal ci benn bataaxal ne am na weccente xalaat bu nga xam ne loolay séntu ne ne la muy jurkat mooy tege ne ngànnaay yi ba tax na boob le bataaxal jot nañ ko fësal ñu duppee ko acte 2 ci accord de bi nga xam ne moo delluwaat ci diggante état bi ak initiative bi nga xam moo delluwaat ci ñu liggéey ngir ñu tege ngànnaay yi lée fa nga xam ne mooy front Nord Jakaay ba tey boobu le document ñu ngi ci yaa ne ne daal ka fa toogaloon nguur gi di comité ad nga xam ne moo delluwaat ci yaa saytu wàllum jàmm Casamance ak it jotoon ñun soo waxtaan ci juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru mars ñoom it dañoo daal di dégg woote bi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko ca ba mu doome fa nga xam ni moo di Goudomp di sàkku rek ci nga xam ne ñooy waa MFDC ñu tege ni ngànnaay ngir jàmm mën am ci gox beewge loolee nag tàbbiwul ci nopp ku tëx ndax ci fàttali amoon na acte 1 bu nga xam ne mooy accord de paix bi ñu signé woon ca Gabrousse ci ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juin ci atum 2022 lii nag moom da ci daal di toftalu yaakaar ne ak ñi nga xam ne ñoo ci dugal seen loxo loolee war na mën a jur jàmm